Euh, li mu am moom Cheikhul Khadim radiyallahu taala anhu bàyyil xel ni way juram moo ko liggéeyal maam Jaara Buso mhm. Asan keroog bi ñu muuree maam jaaro Buso di ko yóbbul Maam Mor Anta Sali mhm. maam Jaara Buso dafa wax ñi mu àndal ni leen budul woon ak aaya alquran bi yàlla wax ni maa kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa xaatama nabiyina sa suratul ahzab maam jaara nee na baatu wa xaatama nabiyina rek moo ma jaaxal